fekk jaaduwul kenn lekk ko ku dul saraxalekat yéesu dellu ne leen yàlla sàkkul nit ngir bésu noflaay bi waaye sàkk na bésu noflaay ngir nit noonu doomu nit ki mooy boroom bésu noflaay bi